xamante ne ñu ngi koy waxtaanee tey ji seen émission le soir nekk seen dernier numéro euh, de la semaine ginnaaw ba ñu jugee ci li nga xamante ne euh, mooy di mbirum euh, santé boobule di ab scandale bu doy boo xamante ne jamono ji réew bu Sénégal mu ngi koy dund Tahirou Sarr moom mi nga xam ne sax bokk na ci ñi nga xamante ne mooy laaj baatu askan wi fa li nga xamante ne. moo di ci assemblée nationale ci élection législative yi ñu jàpp ci 17 novembre bi nga xam ne dimanche la da doon def tey jii li nga xam ne moo di euh, conférence de presse moom Tahirou Sarr mel ni kuy tontu Ousmane Sonko ci kàddu yi nga xam te ne yëkkati woon na ko démb ci euh, meeting ba mu doon def fële ca Guédiawaye moom Ousmane Sonko sax dikkaat na bu baax a baax ci li nga xamante ne la ñu nar a la ñu war a dëkkee ak ñi nga xam ne ñoo di étranger yi fi nekk nekk na ñoo xam ne ñu ñu war a xoolaat seen taxawaay la waaye itam am na ci mbir moo xam te euh, bu ëppee rek Moustapha mën na doon li nga xam te ne moo di beddi xeet mu mel ni Tahirou Sarr daal euh, wax jooju euh, daf ko dafa tax mu ne ba futu ba tax mu def conférence de presse tay ji mel ni kuy tontu Ousmane Sonko. waaw melul ni kii tontu sax da koo tontu. xam nga wolof la ñuy wax <laughs> dafa tontu Ousmane Sonko bu baax a baax a baax. dëgg uh-huh. yàlla tontu na ko tey. Mm-hmm. gontoo na ko conférence de presse. Mm-hmm. waaw liñ ci liñ ne. am nañu ci d'accord am nañu ci d'accordul mhm. sujet la boo xam ne ñu bëri dañoo jàpp ne populisme daf ci dugg bu baax a baax a baax a mhm. pour wane am benn taxawaay boo xam ne euh, ñenn ci sénégalais yi gis nañ ne euh, kii fi muy waxee gis naa sama bopp wala yaakaar na sama bopp d'abord buñ mhm. delluwaatee ginnaaw tuuti da nga gis ne Tahirou Sarr mii tey ji amoon na fa ay jamono wax dëgg yàlla ku jàppale Ousmane Sonko la woon. Mhm. da ko daan gis ci plateau yu bëri ñëpp jàppoon ne sax Pastef la bokk. ba bi ñuy mhm. formé gouvernement am nañu si doon séntu Tahirou Sarr am nañu daal xel ñoo xam ne dañoo. <laughs> ko gis. Euh, mhm. ci réseaux sociaux yi ku nekk di waax ñii di nangam ak nangam donc c' est pour ne amoon na benn proximité bi ak euh, euh, waa Pastef laay wax. parce que dañ daan jàppale ci plateau yi donte bokkul woon Pastef dafa amoon benn mouvement euh, si sénégalais boo xamante ne mhm. moom la euh, mouvement nationaliste sénégalais jël li ñu moom la tudd mhm. léegi nag ñu dem ba expliqué na euh, digganteem ak Ousmane Sonko ci élection législative avant mu doon ñam déggante nañ waroon déggante waat mu voyagé ñëwaat ak li ci xew yépp mhm. ak fi mu teg idéologie am mais Ousmane Sonko sorti bi mu def démb tey ji amee boo xoolee ba ci biir dafa am loo xamante ne lu bëri mën nañ ko si jàngat bi jiitu xam nga bu defee sotti ci quarante huit des meeting yi jeex mu ne am na ñoo xamante ne c'est-à-dire wax ak Tahirou Sarr te tudd ko bi mu waxee ak Tahirou Sarr tudd ko. Mhm. discours bi yëpp dafa déconstruire li nga xam ne te mooy discours Tahirou Sarr discours bi yëpp Ousmane Sonko dafa ko déconstruire carrément. Mhm. loolu duñ ko d'accord nombre de euh, nombre d'étrangers yi ñu yaakaar na ñoo fi nekk nekkuñ fi. sénégalais yi nekk bitim réew ñoo gën a bëri fuuf étranger yi fi nekk kon taxawaay bii ñu am ni su dee dañ ko delloo sénégalais yi nekk bitim du baax si ñoom donc déconstruire li nga xam ne mooy mooy mooy euh, mooy vision wu Tahirou Sarr. Mhm. léegi loolu mënu woon neex Tahirou Sarr. maintenant man su ma doon moom tey jii su ma doon moom du ma def conférence de presse mais dinaa def communiqué. Mhm. du ma def conférence de presse mais damay def communiqué expliqué waat re repréciser li nga xam ne mooy sama pensée avancé dem. Mhm. mais bi mu nee day def communiqué ñëw ba ci naan mag bu fenelee rakkam rakk ji danaan kan fen nga dafa dafa fen ak dafa def nii wëkk dugg ci ay débat yoo xamante ne. man. laa da ngay. xam nga personnaliser trop débat non mais, mais mm. au delà de ça sax parce que xam nga mm. fi muy dem daf may fàttali aar Sénégal. Mm. aar Sénégal ba leen Ousmane Sonko ne fii ku fi àndul ak Yewwi Askan Wi Macky sàll nga àndal ñoom ñëpp ñu dagg investir plateau yi di tontu di xataraayu di tëb di daal. Mm. bañ demee prix forest lañ am. donc am na yoo xamante ne pour man xel moo koy mottali. Mm-hmm. xam nga Tahirou dafa am benn benn benn nu mu ko ma tuddee benn électorat boo xamante ne tey jii xam nga ñoom lu ñuy wax. bu dee mono la ñoom ci Sonko la ñuy signé waaye bu dee polygamie la dañuy signé Sonko teg ci Tahirou. ok te élection yi monogamie lay laaj. léegi bu laajee monogamie Tahirou du am chance. léegi foofu boo teengalee maa nga xëcc parce que ñi ëpp si ñoom ñi ëpp si ñoom ñu ko daan jàppale daan ko laaj daan ko puus boo xaree seen xol Ousmane Sonko nga mhm. li mu doon jàppale Ousmane Sonko ko moo tax ñu bëgg ko bu ubbee front jàkkaaru Ousmane Sonko du ko arrangé mën na perdre non day day day lu bëri bu mhm. ubbee front jàkkaaru Ousmane Sonko du ko arrangé parce que élection yi day jeex mhm. fi ñu toll nag li mu war a ñaan yàlla mooy nekk député est ànd ak Ousmane Sonko pour loolu gënuloon yomb si moom. waaw mais comme ñee dañ defar liste. dem ak mouvement wam mhm. certainement comme ñee dañ dem ci liste moom mhm. nee na bi ko Ousmane Sonko doon woo après bi affaire jubsee xamoon na ne peut ni mu ko waxee quoi bu mhm. ñëwoon. comme ni mu def ñeneen ñi la koy def photo ak yow après li nga def ci tirage ci spécimen nag li nga def ci wàcc campagne bi nga daal di koy teg suuf nee loolu du respecter ses militants Euh, amoon na benn benn taxawaay boo xamante ni ñëpp gisoon nañ ne. Mhm. te bu demoon ci usman Sonko dañ naan euh, euh, mbattu li del dellu na sa ndaa la. mu ëppoon chance ci moom mu si si. moom moom moom tout au sax daf doon da nga doon gis da doon défendre Ousmane Sonko bu baax a baax. si si loolu lañ ko xamee. Mhm. ci plateau yi défendre mhm. Ousmane Sonko. théoriser tamit idée nationaliste idée nationaliste. bi nga xam moom la am. donc loolu lañ ko xamee mais man de li may lire ak li ma gis nii jàkkaarloo bi muy jàkkaarloo ak passif. bu amee chance ba nekk député ba jàll dina mm-hmm. mucc parce que su boobaa dina doon benn futur Pape Djibril Fall entre guillemets maanaam dina mucc waaye dina jàkkaarloo ak ñoom parce que ni mu mm-hmm. waxee nii tey ji non ami li ma wax ni bàyyi ci xel ni mu waxee nii tey ji oolee may la nar a def assemblée voilà day wëlbatiku noonu jàkkaarloo ak ñoom sax mm-hmm. dem nekk ji non inscrit wala nangam ak noonu mais bu duggul assemblée national dafay dafay gën a garaaw ci moom parce que carrière politique am su boobaa li ko doon may chance mooy mu toftalu ci Pastef mhm. Pastef jox ko benn poste wala mu am ñu ne ko kaay ñu liggéey mhm. mu yokk dooleem mhm. te peut-être comme nee na ci coalition présidentielle ba tey lii mën na doon benn parenthèse quoi mën nañ ko comprendre noonu mën na doon benn parenthèse c'est-à-dire même buñ demoon tey ji ba élection yi jeex ak lépp lu mënti am àddina doxaat ba ñoom ñaar ñu àndaat mu dem àndaat wax na ci débattre na ci fu ne toog na. surtout ci plateau yi. surtout ci plateau yi. exactement. ah xam nga Pastef amoon na benn jamono waa Pastef yëpp daanaka ñi gënoon porter seen voix dañu leen a tëj. waaw c'est ça. léegi foofu ñu ne fa doon dimbali mooy yenn journalistes yi yenn chroniqueurs yi. ak ñenn ñi mel ni ñoom Damboj. Damboj mhm. ñoom euh, Cheikh Baara. Cheikh Baara ñoom Tayrou Sarr ñooñu ñoo fi desoon. te Cheikh Baara sax finalement mu tam jàppoon. Cheikh Baara finalement après dañ kaa jàppoon. après mhm. kenn desatu fi woon. Mhm. El ñu takkal ko bracelet waxam bëreetul woon. xanaa Amadou Ba Amadou Ba mu parce sax beneen jotoon nañu ko fay jàpp. jotoon nañu ko fay kii donc kon ñoom dañoo demoon ba daanaka parce que après. ñoom ñëpp ku si doon wax dañ naan moytul. Mhm. léegi ñu bokkuloon Pastef ñu bokkuloon Pastef ñoo leen doon gën a. ñoo gën a nekk à l'aise ñoo leen doon dimbali ñoo doon jàppale. kon ñooñu mhm. tey jii bu àddina doxee ba jafe-jafe am tamit. man mhm. damay jàpp ne tey jii lii am nii nii nii nii mënoon naa ñàkk pour man. parce que Tahirou wax dëgg yàlla ku def lu bëri la. Euh, ci euh, projet Pastef bi. donc euh, mais yoon bi mu jël ni man d'accordu ma ci. man d'accordu ma parce que pour man war woon dem ci war woon dem ci confrontation campagne bi jeex na ba pare. defar sa communiqué nga. préciser sa pensée mm-hmm. après nga dem sa woon nga nga wéyal sa campagne kenn du ma kenn duma ma tourner mm-hmm. mu wéyal sama campagne parce que wax boo toogee wax rek da ngay da ngay da ngay ubbeeku mm-hmm. te boo ubbeekoo rek li ñu naan wax mën nga waxee xol waaw mën nga waxee wala mën nga am noo waxee noo xamante ne après euh, mën nga ci toog di réccu ñu naan naan phrase bi wala mot bi ñu daggal la ko mais j'ai fait un communiqué ma balancé ko Mm-hmm. ma ne sama sama gars yi sama yëpp noté naa noté naa Ousmane Sonko sortie bi mu sox sortie bi mu def cependant je tenais à faire ces ma dem wax lii ak lii ak lii ñun waxuñu da dañuy dàq étranger waxuñu nii def ni nii nii nii laa ko waxee woon nii laa ko waxee nii laa ko waxee mm-hmm. sénégalais maa ngi leen di ñaan ngeen def ma confiance nangam ak nangam après ma dem toog jàpp sama njàmbur mm-hmm. ëllëg su élection yi jàllee jafe-jafe du amaat pour pour daje amaat parce que militant mi si bëri. ñu mhm. bëri si ñoom tey jii euh, dañu jox bopp Ousmane Sonko. Mhm. mais est-ce que yaakaaroon ne aussi Ousmane Sonko li tax mu tëb wax ko wax loolu ci période bi la yaakaaroon ne euh, système mu campagne la juste que moo ko def exprès wax lu bel noonu xam na ne ki nga xamante ne mooy Tahirou Sarr mën na réagir. waaw je ne sais pas ndax calcul politique la parce que mhm. ñaar mën na am. waay dafa am ñu jàpp ne débat la boo xam ne mi ngi commencé woon di jël ampleur. mi ngi commencé woon di màgg. ku nekk naan débat bi ñi étranger yi ñi ku nekk di ci wax. Mhm. donc en tant que premier ministre en tant que candidat de la mouvance présidentielle dafay baax mu àddu ci donte kenn interpellé ko ci ñu bëri loolu lañ gisee ñeneen ñi gisee ne sànni xeer la boo xamante ne daf koo sànni xeer. Mhm. pour recadrer ko parce que euh, euh, mën na doon ko candidat boo xamante ne tey jii bu amee benn doole bi mën na constituer benn danger wala benn menance ci ñoom. parce que dafa ko juste pour peut-être. pour pour casser tànk bi. am na ñu gisee noonu. casser rythme bi moom laa lay wax moom laa lay wax am na ñu gisee noonu. Mhm. Euh, sànni ko xeer bi pour kase pour pour pour casser rythme bi nga xamante ne si la nekkoon mais man bu jiitu bi laa gën a gëm man dama gën a gëm ne tey jii euh, Tahirou Sarr le fait que Ousmane Sonko def précision yooyu noonu dafa am leneen lu ci nekkaat xam nga boo xoolee élection yi am na ñoo xam am na koo xamante ne tey jii. électorat am yëpp wala campagne am yëpp da koo teg mhm. si communauté guinéenne bi nga xamante ne dañoo am nationalité sénégalaise maanaam dañuy vote xam nga li ma la mooy mhm. xale yi nga xam ne Sénégal lañ juddoo wala ñu fi nekk am kayitu Sénégal mën a dem voté ji am carte électeur am carte d'identité CEDEAO bi mhm. muy def tout pour su ma leen récupérer su ma leen dajalee mën naa am député wala moom prix forest jàll xam nga ko mel ne Ablaye Sylla boo déggee promesse yi muy defal leen defal dama leen di wutal cité damay def nangam damay def nangam ñu ne mu dugg ci di leen piis parce que ci beneen wet gi dafay gis ne ah yéen bu leen tayru di tëkku man maa ngi fi di leen di leen di leen piis léegi da ngeen naan kon kot Tahirou euh, Ablaye Sylla mais kooku boo xoolee ñëpp xam nañ ne mënul am majorité Sénégal assemblée nationale mënul yóbbu cohabitation mais Ousmane Sonko su ñëwee tenir discours bu ni mel tey ji mais non seulement dafa leen di rassurer mais dañ naan kii mérité naa jàppale. Mm-hmm. parce que tey ji du constituer benn menace ñun te ni mu waxee nii tey ji dal na suñu xel. Mm-hmm. moo tax ma ne politiquement daf ci am lu mu ciy gagné politiquement tamit dafay am lu mu ciy gagné. Mm-hmm. même bu wala ñeenti voix daf koy am ci communauté boobu nga xam ne bëri na ñoo xam ne fi ñu toll am nañ kayit dañuy voté ñu ngi ci mhm. kër yi am nañu liggéey am nañ lépp mhm. donc loolu moo tax ma ne mhm. politiquement def di def na benn coup boo xam ne dina dóor euh, Tahirou Sarr waaye politiquement tamit def siy gagné parce que euh, boo xoolee ñi nga xam ne dañ ñëpp maanaam dañoo ànd ak Tahirou li nga xam ne moom lay wax fi ñuy njëkk fi ñu fi fi ñuy gën a jubóoyool fi ñu gën a d'accord xam nga fan la mooy kayit yi ñuy jaaye lañ lay wax état civil da ngay dem am sa kayit nga demaat war a te euh, ñoo loolu pièce d'identité ñu la jaay nañ. sa kayit mais kayit yi ñu koy jaay ami du du étranger ñoo ñëw di jaay kayit yi. Mhm. man maa koy jaay yaa koy jaay keneen moo koy jaay. te du jaayuñ ko ay sénégalais ay étranger lañ koy jaay lañ koy jaay. effectivement mais mais ñoo koy jaay. état civil boo demee koo koy fekk. ay sénégalais bien sûr waaw ñoom ñoo ñëw nga proposé leen xaalis. Mhm. ñu jaay la ko. Mhm. waa léegi loolu tey jii à qui la faute. ñii. ñun mais su ñun la commencé. ñu koy jaay waaw bu fekkoon ne yaa bañ a jaay. yow boo mm-hmm. boo commencé woon jaay ba noppi wala ki daan ñu ki ki jaay ñu rëkk ndiggam bu baax a baax. Mm-hmm. ko jubali si ki ko jënd. wala ki bëgg a jënd nga euh, wala ki bëgg a nga alerté dem mm-hmm. boole ko dénoncé ko def noonu mais kon dootu ko defati. exactement mais yow noo mën a bàyyee nga xamante ne moo am njubandeem jaay ko léegi nga ñëw si kii ki nga xam ne dafa dafa mais. ki dafa ñëw rek proposer na non waaw man damaa bëgg damaa damaa damaa damaa bëgg damaa bëgg nu ñu koy waxatee damaa bëgg jënd damaa bëgg jënd. Mhm. nga jaay ko ba noppi taxaw ne waaw euh, moom mooy jubadi parce que moom mooy jënd kayit yi ki jaay nag léegi da nga koy fàtte. moo tax ma ne mbir la boo xamante ne pour ñu repenser ko il faut ñu commencer ko ci suuf jëm kaw. Mhm. su ñun d'abord leneen nag léegi ñu xoolaat nu ñu koy defee c'est vrai wut carte séjour. ñu identifier ñëpp. identifier leen waaw euh, def ko comme ni ko dëkk yëpp di defee. Hmm, surtout loolu c'est très important parce euh, que mën nañ ne mënuñ bañ nit jóge ci beneen dëkk ñëw Sénégal parce que ñun suñu ay doomu sénégalais dañuy jóge Sénégal dem ci beneen dëkk mais hmm. pour man war nañ ko xool nuñ koy organiser waa de telle sorte parce que am na yenn quartier yoo xam ne yi ci Dakar ay étranger dañ fa fees dell ñoo xam ne amuñ ay këyit xam leen tey jii ñooñu mënuñoo dugg ci dëkk bi Moustapha def naka su dul noonu def leen neex daw laqatuwaat kan moo leen di identifier ak fan la ñuy xamee ne ñii ñii la en fait Sénégal mu mel ni damay ko ku mu neex dugg ko mu neex génn est jotul tamit aussi euh, ñu ñu ñu jéem a régler loolu aussi une bonne fois pour toutes. waaw mais xam nga loolu mooy mooy mooy jox raison. Mm-hmm. Tahirou bii def xeex boobu mu bëri ñoo xam ne dañ ko siy jàppale. Mm-hmm. ndax xam nga lu tax am na ñoo xamante ne ñu bëri. loolu daf leen naa dal et puis combat bi seen xol bi lay jàpp parce que dañ naan man li ma dal ni mën na dal suba dooma doom mën na dal mhm. keneen léegi nag tey jii loolu est-ce que doo génnee circulaire nga ne tey jii képp koo xamante ne jaay nga fi diw ba ñu jàpp ko mhm. xam nga loolu affaire mbir euh, délit bu la boo xamante bu ñu la si jàppee mën nga tëdd trois ans ba cinq ans de prison ñu yokk léegi nag waaw bu la jaralee nay ji mën nga par exemple bu la jaralee benn montant bi lay jox bu dérisoire nga récupérer ko mu jarale trois ans ba cinq ans de prison nga jël mhm. nga def circulaire wax ci lu way xat xamal leen ne tey ji lii ak lii ak lii moo nekk lii ak lii ak li ko defati lii moo la ciy fekk mm-hmm. su boobaa non seulement nga ne ki nga xamante ne mooy jaay waaye tamit kiy jënd suñ leen jàppee moom tamit daan bi lii dina ko ci fekk mm-hmm. cest à am ci benn rigueur boo xamante ne dafay tax surtout rigueur bi képp ku si amoon njublang wala képp ko si amoon loon naroon def tey ji di nga ko bàyyi loolu ñëpp a ko war a xeex même ñi fi toog nii ak euh, ñu mel ni Tahirou saa ak ñeneen ak ñoom ñëpp ci war a ànd xeex ko parce que du lu baax njubadi la lu bon la lor na ay doomu jàmbur. Mhm. beneen mbir bi ci am mooy carte séjour yeeg yooyu yëpp d' accord nañ ci dañ ko war a am. mais mhm. yëpp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy régulariser. normaliser ba mu jaar yoon. Mhm. waaw fexe ba yóbbu ko assemblée nationale réciprocité des visa ñu ñëw si ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey jii yëpp man dama naan. Euh, bul ñëw rek li Tahirou saa di wax yëpp nga sànni ko mbal ma man man parfois xam nga lan laay wax dama naan parfois forme bi mooy poser problème. Mhm. c'est-à-dire parfois communication dafay choquer waaw parfois ni muy communiquer mooy choquer ba. Mhm. Euh, te bu boo boo toogee xam moom boo nga déglu ko bu la gën a expliquer détail la di nga naan pourtant. di nga comprendre c'est intéressant mhm. waaw ba nga xam ne. dafay xaw a persécutant tuuti waaw dafay persécutant merci ba ñu bëri ñu bëri dañuy ragal. Euh, dañ naan waaw lii moom su ñëwee mbaa du fi mel nii mbaa ñu jël ñëpp rek dajale waat leen dugal leen su oto sànni leen nangam ak nangam te pourtant. à chaque fois bu gisee ñu am crainte boobu day taxaw expliquer leen mais le lendemain mu amaat ñu amaat crainte boobu lan moo war a lool ça veut que le message ne passe mhm. parce que bu doon jàll ñu bëri dootu ñu amati crainte boobu mais mhm. day gis dafay taxaw expliquer expliquer le lendemain mu am keneen ku ñëwaat tiit ce qui veut dire kon message am am na benn crainte boo xamante ne moom lay àndal. Mhm. loolu moo indi yenn blocage yi. pour mu mën a accessible ci ñëpp jot si. Ah, voilà yéen ñi nga xamante ne ñuy suivre jamono ji ñu leen jaajëfal lu baax ah, ci kóolute gi ak topp bi nga ñuy ah, topp saa seen émission le soir la ñu koy amal ju lundi jeudi bu vingt heures jotee di ci waxtaanee actualité waaye itam di ci waxtaanee li nga xamante ne moo di tolluwaayu réew mi comme